inna lillahi wa inna ilayhi raji'una soxna Kiné Gueye mi dëkk Pikine Ridis école cinq foofu la doon yëngoo di fa daan dooleem nekkoon serante wéef ay samba booy ay nit ñu tekkiwul dara fekk ko fa ci timis gi nekko ko deq rendi yóbbu xaalis ba te daa tolloon diggante teg ci nga xam ne ñoom ñaari bakkan lañ yóbbu yóbbuwuñ benn sax ñaar lañ yóbbu képp ku ne méttiwul rek dalaa dalul wala nga xam kum dal bàyyi boroom këram ak naqar ak tiis ak ay mbokkam ndax lan alalu àdduna kum jaral lenn li doo nit ndax loo bari la boo génnee romb loo moomul te loo barile la bari la gis lu jaayul rawatina xale bu jigéen di daan dooleem amul dara looy def man mën naa comprendre sax nga xupp ko nangu lim yor waaye nga na ko rendi ci jigéen hmm, waaye la sëñ Sàmbay waxoon rek ku dul xalaat guddi gu njëkk ci bàmmeel lu la neex defar te tegaatoon na ja ko koo yàq àdduna mu sa àllaaxira te suñ boroom kenn ku nekk ci ñun dina wéet ak yow ba nga jàpp ne yow kese la mas a bind ci kaw suuf nañ leen delloowaat xel yi delloo siwaat xel yi te xam ne alalu àdduna jarul lii ndax sëñ Saam daana wax naan bànneex jarul gàcca àdduna jarul alaxira ñàkk jarul ñàggi lii nag ñàkk la ba pare ñàggi lii ngeen def doomi jàmbur ji wallahi lu ko gën a ñaaw wala lu ko gën metti amul yàlla na ko suñ boroom jéggal yàlla na ko yàlla yërëm yal na ko yàlla xare àjjana waaye lii moom wares na cee jóg bu fekkoon ne ku agressé nit ray ko buñ la jàppee teg la ci kanam ci écran yi ñëpp di la seetaan ñu sotti la essence lonk lay pënu taal la léegi agressé di jamanteeg rayante bi jeex takk ci réew mi lii dafa ñaaw torop barki alxuraan.